ñeen fukkeelu xadiis ak ben nee na abi muhammadin jëlee nañ ci bàyyi muhammad turam mooy abdillahi sayidna abdillah bin amr bin al aas doomi sayidna anhuma yal na yàlla boole leen gërëm abdullahi ibnu umara comme mm-hmm. lañ jàngoon démb mm-hmm. kii nag abdullahi ibnu amr mm-hmm. léeg-léeg am ñu leen jaawale duñ benn waaye ñoom ñaar ñëpp mm. ci magi saxaaba lañ bokk ay magi saxaaba jur leen sayidna amr ibnul aas mm. jàmmaarloo na ak jullit yi jàmmaarloo yu métti waaye ba mu duggee ci lislaam hmm. kenn mënu ko ca hmm. doomam ji nag hmm. bokk na ci ñi nga xam ne ñu gën a ràññeeku lañ ci wàllu solo xadiis ak ci wàllu jaamu yàlla ci saxaaba yi am na ñu ñuy tuddee almukthiruuna am ñu ñuy tuddee almuqalliluuna wala almuqilluuna ñi nga xam ne liñ soloo ci xadis dafa bari mm-hmm. am ñoo xam ne liñ solo ci xadis bariwut mm-hmm. kii nag bokk na ci ñi ëpp liñ mm-hmm. soloo xadis jëlee ci yonantu sallallahu alayhi wa muy abdullah ibnu amr bin al aas bokk na ci ay particularité am daa bind moo tax abu hurayra daa ko ci ñee nee na laa aclamu axadan akthara xadiisan minni an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila abdallahi bn am radiyallahu anhuma fa innahu kaana yaktubu wala aktubu mu ne xawma ku ma ëppale xadiis yuñ jëlee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ah xanaa abdullahi ibnu am mm-hmm. lu tax mooy moom dadaa bind te man duma bind Hmm? moo tax ñiy wax ne xadiis yonentu sallallahu alayhi dafa tere woon ñu bind ko hmm. kenn warata sukkandiku ci xadiis ci alquran rek lañ war a xem hmm. seen alawa soriwut wala seen honnêteté moo ci xàggut ci njëlbeenu lislaam la yonentu daa tere ñu bind waxam dara bañ ñu jaawale ko ak alquran buñ demee nag ba mbir mi dal ñëpp ràññee ci lay maye ndigal non seulement pour ñu bind xadis hmm. waaye sax muy ñaax nit ñi mokkal ko ak di ko jottali waa hmm. ah, di ñaanal sax ñuy def loolu hmm. ci xutbaam gi muy tàggatoog jaami ci arafa wax na ci ne ñi fi nekkut ñi fi nekk nañ jotal ñi fi nekkut ñi fi nekk nañ jotal ñi fi nekkut ñi nga xam ne ñoo teew nañ jotal ñi nga xam ne teewuñu yonentu sallallahu wax na ne soloo leen jëm ci jotal leen jëm ci man juree sax benn aaya mm-hmm. wax na ne yàlla na yàlla na tëxal cam soo xam ne dégg na ci man wax mm-hmm. dal di ko nettali ni mu ko déggee mm-hmm. kon digle na ñu bind xadiis may na ndigal abdoulahi mi muy bind xadiis ba mu koy bind moom abdoulahi ibnu amr am na ñu ne ko li ngay def lu tax nga koy def ah ndax mën naa am nga bind dara fekk yonentu sallallahu waxewu wa sallam hmm. euh, waxeewu ko nim nim nim nim doxee mën naa mu fàtte wala mu juum hmm. wax ju mel noonu hmm. mu ñëw wax ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko bindal waat naa ci yàlla ne dara du génne fii ci man lu du dëkk waaw moom nag bokk na ci juróom-ñaar ñu ëpp luñ soloo yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu luñ soloo nag firiwul luñ déggee ci yonant mm-hmm. waaye luñ dégg ba pare nettali ko moo tax ñuy wax mm-hmm. xam nga ne li Seydina Abubakar dégg ci yonantu mm-hmm. ak ñi mel ni moom ni ki Seydina Ali ak Seydina Omar kenn déggul ko ci yonant sallallahu alayhi wa waaye am na ay xew-xew ak mbir yu tax seenu nettali dégg nga xadiis bariwut mm-hmm. mel ni Seydina Abdullah Seydina Aboubacar mm. gannaaw yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari at rek la dund mm-hmm. te boobu mooy buuru jullit yi mm-hmm. moo jiite gouvernement bi jiite lu ne moo tax nga gis xadis yiñ solo ci moom mm. gën a néew xadis yiñ soloo ci ñii ñii dund nañ lu ay fan dund nañ lu gudd lu bari ci at gannaaw yonantu sallallahu alayhi wa ba pare amuñu woon responsabilité yu ñoo ñooy mm-hmm. kon ñoom jàngale lañ gënoon a faree daal mm-hmm. moolu Abdullah ibn Amr wax mm-hmm. mu ne qaala mu ne qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wax yuuminu du gëm xanaa gëm gu boog ahadukum kenn ci yéen xataa hmm. yakuuna hmm. ndare dafa nekk hmm. hawaahu bànneexam tabaan di aji topp li jitu bii li may indi topp li ñeel la nga xam ne jiitu dikkee naa ci moom wane xadiisun la xasanun ju rafet saxiixun rawaynaahu solo nañ ko mm-hmm. fi kitaabil xujjati ci mm-hmm. kitaabul xujjati bi isnaadin ci sanad saxiixin boo xam ne aji wér la mm-hmm. laa yumin ahadukum kenn ci yéen du gëm ñu ne fu ko yonantu waxe rek ma ngay dàq ngëm gu mët ma ngay dàq ngëm gu mët am ñu ne ngëm nga war mm-hmm. parce que fu nit bàyyee lu warul rek mm. kon ngëm nga war ci moom mm. matalut ko mm-hmm. fu nit defee lu warut mm. kon ngëm nga war ca moom newut fa xata mm-hmm. yakoona xawaahu tabaan li ma jitu bii fekk bànneexam topp sharia yi may indi xadis ji nee na xadis xasan la nee na xadiisun la mm-hmm. ku mel ni ibnu rajab nag mm. ci taqibam mm. bi muy taaliq ci téere imaam nawawi bi mm. moom i na xadis ji mm-hmm. waaye imaam nawawi nee na ji rafet na uh, wér na mm-hmm. moom yeneen i muhaddisuun xadis la joo xam ne ak loo mën a wax ci isnaad bi hmm. moo xam li ibnu rajab wax wala imaam nawawi wax hmm. maanaam yi moom mënta bañ a wér hmm. te imaam nawawi xaafid la min xufaadil ummati amul kenn koo xam ne dana gëm-gëm gu mat sëkk feeg li neex yàllaa ko yonent bi neex na ko du xem ca ko mm-hmm. waaye mu topp ca kon mm-hmm. xadis daa ngi wattandikuloo ñu jiital suñu bànneex mm-hmm. baa ñu jiital suñu xel baa ñu jiital li nga xam ne mooy suñu aada ci kaw li yonantu sallallahu alayhi wa sallam indee ci kanam loole lépp lu ñuy def na fekk ne dëppoo naag yonantu sallallahu alayhi wa sallam mhm. dëppoo naag njubal njubal yàlla mhm. bu ko suñ xel nangoo bu ko nanguwut mhm. te xel mu sell mënta bañ a nangu lii yonantu indi bu ko suñ aada nangoog su ko nanguwut bu ko suñ bànneex nangoog su ko nanguwut moo tax amul kenn koo xam ne war naa dikkee dara mbaa mu def ko hmm. mbaa mu wax ko mbaa hmm. mu topp ko hmm. lu dul na seet la ca yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ne jaamu du wér féeg ak sell ñeel yàlla newut ca muy lixlaas waaye jaamu yi du wér féeg dëppwut ak njubal yonentu sallallahu alayhi wa bu ko defee kon balaa nga atte na nga tegtaloo ci njubal yonentu ba noppi na nga tegtaloo ci sharia waaye bul indi sab àtte ba pare hmm. di wut tegtal boo ko dëgëralee hmm. bari na ci ñun ñoo xam ne dañuy def dañuy topp dara ba pare hmm. soo ko wut nag nuñ koy justifier ci alxuraan baa ci sunna boo defee ñuy jéem a damm laay yi mbaa xadis yi pour ñu dëppoog seen bànneex waaye dañoo wara seet lan la laay wax lan la xadis wax lan la alxuraan wax lan la sunna wax ba noppi ñu sooga jëfandikoo suñu xel pour mm-hmm. mën koo dégg mm-hmm. ba noppi ñu jël suñu bànneex mm-hmm. toog ci topp loo ko li nga xam ne moo du dëkk dëkk jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yuminu ahadukum xata yakuna hawaahu tabaan lima jitu bihi kon fuñ nekk rek ak lu mënta doo xattewoo sharia mooy li ñu war mm-hmm. tabaan li ma bi mm-hmm. te yonentu sallallahu alayhi wa sallam nag mm-hmm. dikkee na lépp loo xam ne mooy xéwénal mi ndéef yi ci seen àdduna ak ci seen àllaaxira yonentu sallallahu alayhi wa sallam dikkee na téere bu yàlla wàccee ci moom wa nazzalna alayka alkitaaba téere boo xam ne lépp a ngi ci tibyaanan li kulli shay dafay leeral lépp loo xam ne lu lépp lëf la mm-hmm. lu nit soxla mm-hmm. moo xam ci bind moo mm-hmm. xam ci jikko moo xam ci dund moo xam ci dundin moo xam ci àdduna moo xam ci àllaaxira lu dul alxuraan leeral na leeral goo xam ne ku ne mën na caa am accès ak leeral goo xam ne raasixuuna fil ilmi yi ñoo ci am accès waaye yëpp leer na rek ku góorgóorlu rek jot ci naka noonu it yonentu sallallahu alayhi yàlla lu ne ko li tubayyina linnaasi maa nuzila su mm-hmm. sunnaam yëpp kon dafay leeral alxuraan mm-hmm. sunnaam yëpp dafay leeral alxuraan mm-hmm. bu fekkee nag dafa dàq ngëm fii ah te ñu ne ngëm gi ngëm gu mat la bëgg a wax kon dañ ciy jàngee ni ngëm dana dolleeku ba yëg yegg ca kaw a kaw waaye dana wàññeeku ba yegg ci suuf ba moytu sax mu wàññeeku ba far dem kan ci moo boole musal mu ne alxadiisu thaani wal arbauna mm-hmm. ñeen fukkeelu xadiis ak ñaar mm. te mooy xadiis ji mujj ci téere bi mm. an anasin mm. jëlee nañ ci sayidna anas mm-hmm. bini malikin mm-hmm. baayam malik la tudd an anas ibni malikin radiallahu anhu kenn yàlla gërëm ko amiin moom la ñuy dàkkantalee xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. su mat set wecc la mm-hmm. waaye dundam yépp mm-hmm. muy liggéeyal yonantu sallallahu alayhi wa sallam bi yonantu ñëwee Madina yaayam daf ko jëyee ci loxo di ummu suleymin yóbbu ko ci yonantu sallallahu alayhi wa di ko ko jox mu nekk ak yonantu fukki at yi yonantu dund Madina yépp sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. liggéeyal naa ko fukki at mm. mosut maa xas mosut maa saaga mosut maa dóor mm-hmm. ni mu ko waxee sax moo gën a fasaaxa mm-hmm. mosut maa wax lu ma def lu tax nga def ko wala lu ma deful lu tax defoo ko sallallahu alayhi wa sang la woon mm. waaye def na ci anas bon mm. nu anas mel ba soxlaatut ku koy gëdd mbaa ku koy jubbanti boobu alayhi salaatu wassalaam mm-hmm. moolu anas wax mm. nee na sami qaala nee na samitu dégg naa mm. rasulallahi sayidna nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne mm. qaala allahu taala yàlla suñ borom mu màgg mi wax na hadisu qudsi ya ngoog boob mm-hmm. lim jiitoohoon mm-hmm. moolu sama borom tabaraka wa taala wax yabna aadama hmm. ey eh, yow doomu aadama hmm. yàlla nag ah, yaaram nag hmm. su waxee doomi diw su fekkee ne tudd na diw moomu mu leer diw moo xam ne muñ xam la bu ne bu ne ibn wala bani rek su boobaa góor ñe rekk la bëgg a wax su fekkee nag ne ibn walla bani lañ ca daafal hmm. giir la wala aw xeet la hmm. góor ñeeg jigéen ñépp ko moom hmm. ci misaal su fekkee ne nit dafa ne haadal baytu waqfun ala bani alxaaji aliyin saaxo kër gi def naa ko waqfu bu ñeel doomi aliyu saaxo rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ala bani aliyin saaxo mm-hmm. ñu xam ne kooku nit la kuñ xam mm-hmm. su boobaa doomam yu góor yi rek a ko moom mm-hmm. dégg nga de waaye su fekkee daf ne hadal waqfu hadal eh, baytu waqfun ala bani taymin wala ala bani tamimin ñu xam ne taym wala tamim ak giir la dégg nga kon doom yu góor yeeg yu jigéen ñëpp a ci Mm-hmm. baatu ba ni mm-hmm. uh, góor la mm-hmm. waaye buñ ko jooyalee ci tur woo xam ne mm. buñ ko joo buñ ko daafalee tur woo xam ne mm. nit la mm. boobaa doom yu góor yi la buñ ko daafalee ci tur woo xam ne nag giir la mbaa aw xeet la boobaa ñëpp a ko moom góor ñooy jigéen ñi fii nag yàlla mu ne yab na aadama wax firiwut ci tuddul góor rek góor ak jigéen ndax ñun ñëpp jógee ci kooku di maam Aadama mm-hmm. kon fii aw xeet lay wax mm-hmm. Mm-hmm. aw xeet lay wax ndax Aadama mooy josaanu xeet yi mooy cosaanu giir yi yàlla ne yab na Aadama ee yow doomu Aadama innaka naka yow maa daawtanii maami charte ya la maam charte la fiilu charte gi mooy daawtanii jawaabi charte ji mooy xafartu lan mooy maam chartiya mm-hmm. bépp maam moo xam ne mm. fa nekk boo fa tegee ma maam mu dox rek mm. maam chart la mm-hmm. maa daawta nii mm. da nga naan saa yoo ma hooyee mm-hmm. doo wax ne du maam naa fiye de nga ne maa daawta ne dooma woo bu doon dooma woo dégg dafay illaa dafay nekk ca jawaab ja illaa xafartu la hmm? waaye maa daawta nii saa yoo ma hooye hmm. ngay wax hmm. hmm. war a jawta nii te nga yaakaar ma saa yoo ma ñaanee te nga yaakaar ma seetal seetal wax ji ni mu sewee nag moo nga xam ne kon kii ñaan soxla na ak teewlu ndax kii ñaan te teewluwut dafa mel ni dafay fo rek waaw duwaa u nag mooy ñaan mhm. wala sax mooy jaamu yàlla mhm. ni ko yonantu sallallahu alayhi wa sallam waxee addu'a wa ibada mhm. addu'a huwa al ibada wax na it ne addu'a muxul ibada yàlla sax nee na wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin ñaan leen ma ma may leen ba pare ne ñi réelu ci jaamu ma ñu ñu ma rëyloo jaamu dinañ dugg jahannam mm-hmm. mu mel ni kon ñaan ak jaamu yàlla benn lañ mm-hmm. dëgg la ñaan jaamu yàlla la mm-hmm. ki nga xam ne mi ngi ñaan mi ngi wax allahumma xfir lii waaye kii julli it mi ngi ñaan ndax kii julli boo ko laajoon lu tax ngay julli dana la wax ne damay julli ngir ngërmande yàlla damay julli ngir yoolu yàlla kon mi ngi koy ñaan ci xaal benn ngay ñaan ci wax walla ngay ñaan ci xaal adduaa qawlan nga ne lii wala duaa xaalan yaa ngi jëf-jëf joo xam ne yaa ngi ci yaakaar yàlla defal la ca dara kon yaa ngi ñaan yabna aadama yey yow doomu aadama innaka naka yow maa daawta saa yoo ma ñaanee wa ta nga yaakaar ma xafartu ma baal la ka ñeel la ala ma kaana ca la nga xam ne gongeeku na min ka ci yow Mm-hmm. lépp loo xam ne jóge mm. na ci yow mm. ba nga juddoo ba léegi mm. soo ma ñaanee te yaakaar ma dégg nga ma baal la ko mm-hmm. wala ubaali te duma faale mm-hmm. waaw lum bëri bëri duma faale ndax bëri bàkkaar dafay fekk euh, tegoo ko ci wetu yërmande yàlla loo teg ci wetu yërmande yàlla mu tuuti lu mu bëri bëri yabna aadama hmm. ey eh, yow doomu aadama hmm. law balagat hmm. su jotoon zunubuka say bàkkaar anaana samaa'i gogi xasamaan anaanu ah, mooy la gën a kawe maanaam bu sekkoon ne sa bàkkaar dem na jot na fa gën a kawe ci asamaan hmm. tey jii boo xoolee asamaan ci kaw ci gis bët hmm. dafay mel ni daf ñoo dafa wàcc fi wàcc fi wàcc fi hmm. am fu nekk ci digg bi digg bi mooy fi gën a kawe kon foofu ñu ne kon mooy anaanu samaa ci gis bët anaanu dana firi tamit eh, niir bu fekkoon ne ca kaw gën a kawe ca niir ya dégg de waaye anaanu fii lim ci jublu rek mooy su fekkoon ne Hmm. sa bàkkaar yi fees na diggante suuf ak xasamaan hmm. ba boo xoolee suuf ak xasamaan yépp dégg nga dara newut fi lu dul ay bàkkaar hmm, waxuma la dem ba jege asamaan waaye dem ba ca njubbaxtandu asamaan thumma staghfartani topp nga sàkku sama njëggal thumma staghfartani topp nga baalu ma xafartuma baal laka ñeel allahumma laka alhamd sa bàkkaar suñ jotoon gogi xasamaan hmm. da nga ñaan ma njëggal hmm. daa ma fekk may jëggal akoon hmm. ndax yàlla mooy alxafuru rahim subhanahu wa taala talabul maxfirati nag moo xam nga ne allahumma xfir lii wala nga ne astaxfirullah boo ci def rek fekk sa xol baa ngi teew sa borom jëggal la ah mm-hmm. ñaan dafay ànd ak mm. xol bu teew mm-hmm. moo tax ba mu ne mm. euh, maa daawtani wa rajawtani mm-hmm. ba mu ne istixfaar bi ñu xam ne am nag toggoo looy toggoon nag foog nga teew yabna aadama mm. ey yow doomu aadama innaka naka yow law ataytani soo ma dikkee hoon maanaam gannaaw maanaam dund nga ba jógee fi hmm. bi ngay ñëw dajeeg man hmm. nga dikkee ma hmm. bi quraabil ard ci lu jegee fees suuf quraabu dana firi jege waaye quraabu dana firi dégg nga mbat sax nga xam ne kon mbat mi nga xam ne mooy muur jaasi ba mu fees waaw dana qiraabu man danañ wax qiraabu danañ wax quraabu dégg nga de mm-hmm. soo may indi loon lu jege fees suuf mm. mbaa lu ko fees mm. mbaa lu ko lu toll ni moom mm. ci ci réyaay mbaa loo xam ne boo ko tegee ci suuf sax du ko xàttan boo ma dikkee woon ci ci lu mel lu mel noonu xataayaa ciy bàkkaar summa laqitani mm-hmm. topp nga dajeek man mm. laa tushriku fekk bokkaale woo bi yaak man shay'an dara mm. la ataytuka ma dikkee la bi quraabihaa ci lu fees mm. ba lu jege fees eh, dégg nga suuf maxfiratan ci njëggal mm-hmm. mm-hmm. waaw loo mën a def ci bakkaar soo dajeek man te fekk indiwaale benn shirku te shirku nag dafa yaatu mm-hmm. moo xam shirku bu mag sirku bu mag la wala shirku bu ndaw la mm-hmm. ndax yonentu sallallahu alayhi wa tudd na ay yëf mm-hmm. wane ne bokkaale la te bokkaale bi ci gën a mag mooy wutal yàlla an tattaxida lillahi niddan wutal yàlla nawle te moom rekk la bindkat dégg nga loolu bokkaale la jaamu yàlla di ci ngisalu bokkaale la dégg topp xadduna it hmm. muy sa yitte hmm. bokkaale la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na abdu dinaari hmm. wa dirhami wal qatifati wal xamisati kon ki topp xalal ah, dégg nga yonent tuddee na ko jaamu dinaar tuddee na ko jaamu dirham tuddee na ko jaamu mu mel ni kon nit ki mën naa def dara foog ne sax du bokkaale te fekk ma ngay bokkaale fii nag mën naa am yàlla bokkaale gu mag gi la fi la fi la fi jublu mm-hmm. li mën a lu am solo daal mooy doom jaamu yàlla jaam bi mm-hmm. lu mën a def rek mm-hmm. dégg nga gannaaw bokkaale wut ak yàlla keneen um naagu waaye nag ñàkk a naagu warta tax nga bañ a dégg nga euh, jéggalu ndax yàlla dafa daf ñoo jëfloo yonentu mu ne jëf leen fa mu muyassarun li ma xuliqa lahu mm-hmm. ñaari ku nekk lam naat ci yow rek da mm-hmm. dëppoog loola ngay jëf mm-hmm. kon bu mu wax rek ne ah comme yàlla dana bokkaale dana baale yëpp lu ma neex def mën naa am topp jëf yooyu mooy tax nit ki am mujj gu rafet ba du dajeeg yàlla fekk uh, tawxidan ko lii Cheikh na Tidiane radiyallaahu anhu di wax ne am na bàkkaar yoo xam ne hmm. kenn du ko def du deyaale ngëm hmm. bokk na ci bakkaar yi gën ci yooyu mooy al na min makrillaahi hmm. yàlla sax nee na fa laa yaamunu makrallaahi illa al qawmul xaasiruuna moo tax adamul amni min makrillaahi eh, bokk na ci yi nga xam ne Cheikh Tidiane radiyallaahu taala anhu dana dana koy dénkaane lool sax ci ay rasailam yu bëri Hmm? Hmm. garantie yi nga xam ne joxe na ko ak bushra yi mu joxe ci tariqa yëpp hmm. toujours daf cay sette ne fekk jaam bi wóoluwut pexem yàlla jaam du naa ko ci yërmande yàlla waaye jaam du wóolu pexem yàlla innahu laa yeyaasu min rawxillaahi illa alqawmu alkaafiruun wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa addaalluun waaye nag falaa yaamunu makara allaahi illa alqawmu alxaasiruun waaw xayrul umuuri awsatuha nekk ca digg ba fa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan yàlla nag ki nga xam ne daf ko indil bàkkaar yu fees suuf yow oh, nga liy màndu mooy yàlla mbugal ko mbugal mu toll noonu waaye yàlla moom buy wax lu mu wax ak jubla waaye buy joxe dafay joxe ci fadloom mm-hmm. buy wax dafay waxee ci màndoom mm-hmm. waaye buy joxe dafay joxe ci fadloom mm-hmm. waaw bu fekkoon dafa àtte ci màndoom kon ñëpp lakk waliyaadu billaahi moo tax yoon sallallaahu alayhi wa kenn ci yéen du dugg aljanna lu dul ci yërmande yàlla ba ci yow yonentu mu ne ba ci man illaa an yataxammadani llaahu bi rahmatihi bi rahmatihi lu dul yàlla nee na Euh, muuree ma mhm. mbatee ma mhm. euh, yërmandeem mhm. yal nañu yàlla mbatee yërmandeem si gam yonentu moo sukkandiku ci jëfam te moom jëfam yëpp a baax amul dara lu bon niñ tëlee naaw ñun noonu la yonentu bi tëlee def bàkkaar te taxut mu sukkandiku ci jëfam ka waaye xadis ji xadis ju ju ju ju màgg la ju yaakaaru la waaw mhm. loo mën a def mhm. boo dajeek man mhm. te amuloo benn shirk ci sa xol bi nee na ma baal la ak lu mën a doy di suuf di rëy yëpp bu ko bàkkaar feesee sama yërmande yàlla sama sama njëggal sama yërmande man yàlla ko subhanahu wa kon xadis ja ji mottalee téere bi xadis ju ju ju ju ju ju ju dëppoo dëppoog tëj la mm-hmm. ndax ñun ñëpp xasnul xaatimati la ñuy wut mm-hmm. loo xam ne du yaakaaru la mm-hmm. di ci yàlla di ci wane fonk ak teraanga gi jox doomu aadama ba naan ko yooyu mm, ko woo wax ne li nga bokk na ci li li ma gën a neex te su ma su su ma su ma ko déggee di bëgg a naaw ngir bëgg mooy dugg gi ma dugg ci wax yàlla ji ne yaa ibaadi mm-hmm. bu ne yaa ibaadi yi ma yëg ne ci laa bokk nee mm-hmm. na loolu amut bànneex bu ko mm-hmm. fawee kaw ak boole gi ma boole ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla teral na doomu aadama wax na ko ci suratul israa wa laqad karramna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kahirin mimman xalaqna tafdila hmm? te xadis ji waa hmm. wane ne képp koo xam ne ñaan na yàlla tabaraka wa taala te dégg nga yaakaar ko hmm. yàlla ba yàlla dana ko nangul ñaanam hmm. su fekkee ne eh, ñaan nga loo mën a ñaan te fekk yaa ngi teewlu rek yaakaar yàlla waxuma la nga am li nga bëgg waaye yàlla dana la baal ndax maa daawta nii wa rajawta nii la wax ne xafartu laka dégg uduuni astajib lakum mm-hmm. la yàlla wax mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. kon kuy ja kuy ñaanit ñu mm. déggee ci ne na teewlu teewlu looy def rek mm. moo xam ñaan la moo xam julli la mm. moo xam zikr la moo xam tasbix la moo xam lu moo lu mu jaam bi daf caa war a teewlu waaye bu mu ne man teewluwuma tax mu bàyyi loolu ndax ibnu atailahi yi nee na hmm. rahmatullah alayhi hmm. sa teew sa tudd yàlla hmm. ànd ak xol bu sàggan moo gën xol bu sàggan su àndut ak tudd yàlla yaa ngi tudd fi xaalil xaflati moo gën nga nekk ci xaflatu tudd doo yàlla te mu ne tudd gi ngay tudd ci xaflatu mën naa am mu yóbbu la ci tudd ànd ak xudur ànd ak teew tudd ak teew mën naa am mu yóbbu la ci tudd ànd ak sàggan amma siwal madkur te mm-hmm. dégg nga mm-hmm. boo dee tudd yàlla te mm-hmm. fekk sax sa xol bi teewut bul découragé continuel rek nee na loolu mën naa dem ba yóbbu la ci ngay tudd yàlla ànd ak nga teew teewlu yàlla mu ne booy tudd yàlla ànd ak teewlu yàlla dana la yóbbu ba nga sàggan ci lépp loo xam ne duut yàlla da nga dem ba sa xol bi dootul daj dara lu dul yàlla loolu nag mooy raayatu bi yàlla ñu ko yàlla boole ah mhm. loolooy raayatu bi yàlla ko yàlla boole waaw mhm. yàlla nag nee na loo mën a loo mën a def mhm. dégg nga gannaaw ñëw nga taxaw ci sama <coughs> kanam toroxlu waaw wane ne man rek a fi ne xam nga yow yaay kan xam nga yàlla mooy kan nee na dootuma seetati dara hmm? waaw yàlla bàkkaar lu mu bari bëri bu jotee sax boggi xasamaan mu baale ko tudd ci seet dara te du ci faale dara wa man yaamal suan aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafura rahima waaw lu mu rëy rëy su jaam bi taxawee ci kanam boromam jéggalu yàlla jéggal ko borom xam-xam yi nag ne waaw ndax bu ne jéggal ma rek te defu luy waral mu jéggal danañ ko jéggal ñu ne ah yàlla mën na ko jéggal de waaye bu ca boolee yi waral asbaabul maxfirati nag hmm. booba ci lay ci lañuy gën a am yaakaar hmm. ndax su fekkee ne dafay jéggalu ba pare hmm. génn neexaat ca lam ne woon dafa mel ni dafay saboté yàlla waaye bu fekkee ne ne ba muy jéggalu sincère na ci jéggalu ga génn bakk na mënaat ko mbaa mënaat ko mu dikkaat bu teree yàlla jéggal ko dégg du dëñ du dëñ du dëñ di di ko jéggalu lu dul ne yàlla du dana dana dana dañ lu dul yàlla ne lu dul ne yàlla dana ko jéggal subhaanahu wa taala mm-hmm. ko waxee ci ci xadis yi mm-hmm. waaw mm-hmm. jaam bi dafay bàkkaar yëg ne am na borom mu daal di jéggalu bàkkaaraat yëg ne am na borom mu daal di jéggaloo waaw yàlla moo fekk taywoo rek du du du tay seytaane mën na laa wax ne ah yow boo jéggaloo yi danga dem defaat lii rek ibnu ataa ilaahi dana wax ci beneen téeréem bu dul xikam nee na nga am góom dem faju dégg nga moo gën defe naa noonu la ko waxee nga am góom faju moo gën bët bu nga am góom ne ne ah man suma ma fajooy suba ma góom kon jarul may faju bëri lëkket moo gën bari góom bëri lëkket moo gën bëri góom Mm-hmm. waaw waaye daal li nga xam ne moo war ci jaam bi buy mm-hmm. jéggalu mm-hmm. mu boole kook tuub waaw mu teewlu mbaalu gi te tuub tuub nag borom laxdar yi waxoon nañu ne shurutu tawbati nadamu ala ma faata wa niyatu an laa yacuuda ila dambin fi ma baqiya min cumurihi wa an yatruka almaasiyata fi saacatiha in kaana mutalabisan biha waaw li nga xam ne moo faat dégg nga mhm. ah, yéene ne dootoo ci dellu mhm. ak bàyyi ak mooy ca saase su fekkee ne mu ngi ko doon làmboo mhm. hmm? am na ñoo xam ne yóbbu nañ ko ci eh, charte yóbbu loolu am na ñu ne juróom lañu bu mel ni eh, ibnu Uthaymin mi ñuy eh, rahmatullah alayhi cheikh ibnu Uthaymin mi ñuy wettali ko téeréem bi mu charxa al arbaina nawawiya charte bu njëkk bi lixlaas la wax mhm. waaye lixlaas moom mhm. charte la ci bépp jaamu yàlla mhm. gannaaw tuub jaamu yàlla la xanaa moo tax mu def ko charte waaye lixlaas moom charte la ci bépp jaamu yàlla wa maa umiru illaa li yabudu llaha muxlisina lahu diina mu ne chartaam ñaareel bi mooy réccu li nga xam ne euh, jaam bi def na ko waaw réccu mooy euh, dégg nga jaam bi xolam ni muy dammoo ak ni muy rusee hmm. ci def gi mu def loolu hmm. bu xalaatee ne euh, saa yu xalaatee jëf ci rek daal di ruus hmm. dal di daal di wane ne man dee wax dëgg yàlla lii yàlla ja yàlla jaar ak man ma mën a def lii waaw lii de ruslu na waaw nitu yàlla ko mu ne ñaaw na rek bu dee sax baal baal nañ ko baal baale nañ ko waaw nee na bu ko yàlla waxoon ne ko demal xal janna dégg nga baal ko lépp Mm-hmm. terewul ñaaw na rek ku mm-hmm. dee sawa mm-hmm. jaam ni ko yàlla teralee mu ñàkk kerso bay def lu lu bon ci kanam yàlla nee bu ko yàlla baale ñaaw na rek waaw ah, dégg naa ci sëriñ Cheikh ah, Tidiane si ne ko yàlla ko mu ne si El Hadj Malick na ci yàlla yal na Malick de yal na ko ci yàlla musul waaw ah, ñu ne ko luy ajanaay gàcc ne nga agsi ñu ne waa kii xanaa du kàccoor ba woon mhm. place sàngam ñu mhm. ne ah moom la kay ñu ne acce jël leen yóbbu safara ñu ne mhm. ah sang bi lañ ko tuddee sallallahu alayhi wa ñu ne ah kon am nga chance waaw ah, nee na loolu ay janay gàcc waaw incha allah nee nit ñi buñ ko amoon it jël waaye doomu aadama dafay wut la gën a kawe dafay wut la gën a kawe ndax bu ca jotut mën naa mu jot la digg doomu waaye bu wutee la gën a suufee bu ca jotut rek àdduna tukki ñu ne loola ñu ne kon réccu hmm. euh, dégg nga euh, charte la ci yonentu sax dana wax ne tuub réccu la hmm. am na ñu ne déedéet réccu du ci charte ndax euh, yëttu ak kersa hmm. togg dafa laaj toggoo du woon ñëpp ko mën waaye ñu ëpp ci waroon xam-xam yi daal nee na ñu réccu dégg nga charte la ci ndax bu fekkee ne réccuwut dana continuer la mu doon def waaye li nga réccuwut mën naa am doo ko bàyyi mu ne chartaay ñetteel bi mooy buddee ko anil maasiyati allati mm-hmm. taaba alayha mm-hmm. mooy lii boroom lax di wax rek mm-hmm. bàyyi mooy ga ci saasa in kaana mutalabisan uh, biha hmm? bu fekkee ne dafa am lu war lum daan baax na ko na ko na ko na ko na ko na na ko na arrêté baga hmm? na baga wala dafa am lu war lum baxoon loo xam ne mën nañ ko dabaatal na ko dabaatal maanaam daa daawut joxe asaka hmm. par exemple hmm. kooku bu tuubee fokk mu joxe asaka jooju hmm. wala dafa am lu xaraam lu mu def bu fekkee ne lu mu daa def la daf koy arrêté su fekkee ne lu xaraam li nag dafa am rapport ak beneen doomu aadama nit ki dafa jëloon yëfi jàmbur kooku foog mu delloo ji ko waaw pour tuubam mat foog mu delloo ko pour tuubam mat foog mu delloo ko léegi nu mu koy delloo nag hmm. mën naa fekkee ne dafa sàcc alalu jàmbur hmm. mën naa dem yóbbu ko hmm. kooko indi ci indil ko problème bu ko waxee daf koo sàcc waaye bu fekkee ne mën naa am ay pexe yu mu ca yu ca kooko jotee te du ca am problème kooku na def pexe yooyu waaw nit ki mu jox ko ko wóor ne ko lii di alalu diw la loolu nga joxal ma ko ko waaye bu ko wax ne ko maa la ko jox waaye alalam la wala nga jox ko xaadi ne ko lii de diwa ko moom mm-hmm. dégg nga alalam la mm-hmm. wala daal nga fexe bam jot ci mm-hmm. dégg nga bu fekkee ne nag koo xam ne ne xam nga ne boo ko ko waxee du am problème nga wax ko ko ne ko maa jëloon sa alal dégg nga sa alal la ni delloo naa la waaye loolu doomu aadama yi mën naa am mu ragal gàcce baa ruus du xam nu ko du xam nu ko ko di xoolee eh, gannaaw ga mu seet nu mu gën a wóoree rek hmm. waaye al muhim mooy na fexe ba borom alal ji jot ca hmm. su fekkee nag koo xam ne daf ko jëwoon hmm. dégg waaye balaa ñu yegg foofu sax su fekkee ne koo ko na nag yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñoo ko war a doon su fekkee ne xamul kooka fu mu nekkati wala dee te amul ñu ko donn wala xamul ñooña dégg nga daal di ko saraxe yéene kooka yool ba mu daal di ko saraxe yéene kooka yool ba su fekkee ne bàkkaar la bu aju ci daram nag hmm. nit ki koo xam ne daf ko daf ko jëw hmm. am na ñu ne dafay dem ba ci moom ne ko jëwoon naa la baal ma hmm. waaye loolu muskila la ndax mën naa indi problème bu gën a bu gën a mag mën naa problème bu gën a mag léegi nag am na ñu ne su fekkee ne waa ji xam na ne yow jëw nga ko ci ngay dem ci moom nga wax ko ne ko na la baal su fekkee ne nag xamuloon xamul ne yow jëw nga ko mm. li yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax rek ne mm. kafaaratu man ixtabtahu mm-hmm. an tastaxfira lahu mm-hmm. kafaaraay ki nga jëw mm. mooy nga jéggalul ko mm-hmm. mooy nga ñaan yàlla mu baax ko fekkee nag xam na ne yow wax nga ko loo ko warta wax jëw nga ko fokk nga dem ci moom ndax xolam féex su fekkee ne nag xamut ko jaru ngay dem ci moom jéggalul ko yàlla rek waaw jéggalul ko yàlla mm-hmm. ndax jëw bokk na ci bàkkaar yi gën a ci bàkkaar yi mm-hmm. bokk na ci bàkkaar yu gën a rëy ay yuhibbu ahadukum an yaakula lahma mm-hmm. ñeenteel bi mooy dogu ne dootoo ca dellu wa niyyatu an laa yahuuda ila zanbin bimaa baqiya min umrihi hmm? ñu ne juróomeel bi mooy mun tuub gi hmm. nekk di nekk ci waxtu tuub hmm. waaw maanaam tuub gi hmm. nekk ci waxtu nangu tuub waxtu nangu tuub moo moom mooy jamono ji nga xam ne doomu aadama mu ngi dund yàggagul ci xar-xarle loolu maanaam euh, ñaari ñaari ñaari ñaari euh, xeeti waxtu wala ñaari xaaju waxtu yoo xam ne tuub duñ ca duñ ca nangu tuub ñoo am am na ñaari waxtu yoo xam ne hmm. buñ jotee rek tuub buñ ko nangu hmm. wenn wi waxtu xaas la hmm. wenn wi waxtu am la waxtu xaas bi moom doomu aadama bu ne la jaga la la la la concerne doomu aadama bu diggam jotee ruuxam di génn foofu tuub dootu ko jëriñati وليست التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن Hmm? Hmm. wala ladina yamuutuna wum hmm. ah, kuffaar def lu ko neex ba dee teew mu ne tuub naa léegi yàlla ah, ah. yàlla wax firawna ba mu ba mu leer ko ne ko dafay lab dafay dee mu ne laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin yàlla ne ko alaana faqad wa kunta min almufsidin ne ko a léegi daa déedéet ak li nga def yëpp dem ma nga xam ne leer na ne ne sa ruur kaa ngi génn foofu du du du la du la du la tuur gi du la jëriñ mm-hmm. loolu mooy eh, nawoon xaasun mm-hmm. wala waxtun xaasun boo xam ne mm-hmm. ku ca tuub yàlla du nangu tuubam am na waxtun aamun nag boo xam ne moom ñëpp a ko bokk mooy saa yu demee ba jant bi fenkee fam daa sooya yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa tanqatiu l hijratu xataa tanqatia tawbatu wala tanqatiu tawbatu xataa taxruja shamsu min magribiha mu ne hijratu du dog feek tuub dogut te tuub du dog feek jant bi génneewul fa muy soowe demee bañ xëy rek jant bi fenk fenkee soowu buntu tuub tëj na buntu tuub tëj na hmm? yii eh, wax nañ ko waaye daal li ëpp ci borom xam-xam yi ñett yi rek lañu wax mm-hmm. mooy mm-hmm. ak guddeeku mm-hmm. ak dogu ne dootoo ca dellu réccu ne réccu bàkkaar bi ak guddeeku ci bàkkaar bi ak dogu ne jaam bi dogu ne dootul dellu ci bàkkaar bi dégg nga loolu nee nañu mooy sarta yi nga xam ne ñooy yu ëpp ci borom xam-xam yi loolu lañu jaam hit hmm. bàkkaaram lu mu bëri bëri su hmm. dajeeg yàlla te bokkaaliwut moom dara yàlla baal ko dañ xam na ci coobareem la de dañ xam ne ci coobareem la de hmm. comme ci mu wax rek ne ah man kay lu ma def bu ma dajeeg yàlla comme awma rek bokk baal na ma dañ xam ne ci coobareem la de ndax wax la inna an yushraka bihi wa ma duna dalika liman yasha liman yasha nag ndax man leer na ma ne ci ñu ko soob laa bokk kon nag naa jéem balaa maa dem rek mhm. naa jéem mhm. balaa maa dem mhm. dégg nga waaye kàddu googu it wane na uh, màggaayu tawxid ndax tawxid mooy loo xam ne su ko jaam bi amee yóbbaale ko ci boromam mën na koo sauvé qul lilladina kafaru loo xam ne ki su ko waxee rek la weesu woon yëpp yàlla ci kéeféer li baal ko ko hmm. waxal yéeféer ne suñ daytaloo yàlla baal leen li hmm. weesu hmm. waaw maanaam lépp loo xam ne xaqam la woon waaye bu dee xaqi doomu aadama ba xaqi juñ mën a dabaatal xaqi yàlla dañ koy dabaatal jaam bi it yàlla nga koy wan ko da nga dajeeg man summa laqitani laa tushriku bi shay'an daje boobu nag képp ku muy sa yittee da nga yittewoo sa bopp da mm-hmm. nga yittewoo sa bopp mm-hmm. fa man kaana yarju liqaa rabbihi mm-hmm. falyacmal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada képp ku yaakaar dajeeg boromam da jëf-jëf ju baax te bu mbokkaaleeg moom dara te bu mbokkaaleeg moom kenn hmm? yaa ayuha al insaanu innaka kaadixun ila rabbika kadaxan fa mulaaqi ngi sonn rek Mm-hmm. waaye nañ xam ne mm-hmm. ah mm-hmm. foog ñu dajeeg moom koo xam ne nag moom moo la bind sant la su ne danga da nga dajeeg man war ngaa góorgóorlu ci lam la sant ñu yàlla dimbale ci góor góorgóorlu ci lim ñu sant te lépp luñ ko war a def ñu defee ko xanam gëm gën a matee lépp lum ñu teree yàlla ñu dimbale ba duñ ci laal dara barke yonent bi sallallahu alayhi wa wa sahbihi xadis mm-hmm. ji mm-hmm. boroom téere bi tëjee mm-hmm. dégg nga ci tudd yërmande yàlla di ci tudd euh, jéggalal yàlla euh, mu tëjee ko téere bi te ñun ñëpp loolu nañ bëgg suñ suñ dund ñu tëjee ko ko euh, loolu danañ ko tuddee baraatul ixtitaam baraatul ixtitaam ci ulamaul balaaxa dafa am lu tuddee baraatul iftitaax am lu ñu tuddee baraatul ixtitaam loo xam ne boo ko hmm. boo koy boo ko waxee hmm. ci njëlbeenu téere hmm. mu wane la nga la nga bëgg a wax la nga bëgg a jàngale ci téere bi dégg nga donte du lool nga du donte euh, da ubbi rek waaye ubbi gi rek dana wane yow fan nga jëm loolu baraatu iftitaax tëj gi rek dana wane dégg nga ne yaa ngi waxin wi rek dana wane ne yaa ngi tëj dana wane baraatul iftitaax ibnu xajar ci buluuxul maraam li hmm. muy eh, ubbi téere bi def ne alhamdulillahi ala niamihi alzahirati walbatinati hmm. qadiman wa xadiisan hmm. dégg nga qadiman wa xadiisan ñu xam ne kon xadis la bëgg a jàngale ñu ngi ciy junj ne téere bi téere bu xadis la te pourtant firi mi mooy lan ñu ngi sant yàlla ci xéwalam yu feeñ yi ak xéwalam yu nëbb yi qadiman ci lu yàgg wa xadiisan ak ci lu bees ay xadis ni muy firee lu bees noonu lay firee xadis di xadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama borom téere bi tamit def baraatul ixtitaam su tëjee téere bi dégg nga jëggalu yàlla ni nga xamee ni mu ngi ubbee woon téere bi yéene mu tëjee ko ak ak njëggal innamal amalu binniyaati te yéene xol a koy def waaye dégg nga tawxid ak ñàkk shirku tamit xol a koy def mm-hmm. kon ba nga yéenee lu baax ci tàmbali mm-hmm. nga dajeeg yàlla yéenee lu baax te mm-hmm. jëfee ko te ñàkk a bokkaale ci mottali màndaxoona yàlla yërmande màndax loolu dana jaadu wala dana yaakaaru yàlla yërëm kookee yàlla jéggal kookee wala yàlla yërëm la yàlla jéggal la yàlla nañu yàlla boole yërëm yàlla nañu yàlla boole jéggal ci bi la téere bi yem mm-hmm. jaar nañ ci baat yi ak ci maanaa mm-hmm. euh, kemtalaay ak liñ mën mm-hmm. waaye ni ma ko waxee woon rek téere la boo xam ne ku nekk ko wara a mokkal di ko jàng di ko jàngaat di ko seetantal ak di ko euh, dënd nafar waaw ku ko dégg yàlla doon la dimbale ci dégg lu bari ci cosaani dégg nga diine ji ñoo mhm. jubale tamit ci dégg lu bëri mhm. ñu njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa mhm. sallama allahuma jaalna min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana nañ yàlla fayal imam nawawi fayal ñu suñu sëriñ yëpp hada allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين وإياكم الحمد لله الحمد لله آمين يا رب آمين صلى الله عليه وسلم